africain yi amul jaaxle ci mënatuñu xam sax ci yenn réew ci la ñu nekk ginnaaw ba ñu seetloo ci ñenn ci suñuy njiiti réew yi Afrique langaamiku goo xamee ne dañ koy langaamiku ci suñu nguur lenn nag mënuñoo xam sax jafe-jafe boo xamee ne mën na koo jural seenu askan ci ay loraange ak bakkan yoo xamee ne dañ ko ciy faat xari goo xamee se ne naqari na koy Afrique nag loolee tax na ñuy yee di yàbbi ci mbir mu ni mel. askan bu fipp baaxul ci kenn mooy tas àddina moo ko tas. Irak moo ko tas même Syrie moo ko tas. ñoom suñu doon xool njaboot gi ñiy faatu tey lu mel ne Guinée neuf personnes wala dix am ay problème ak ñi blessé ñoom suñu xalaatoon loolu mais bu demee ni yow sa peuple moo la faloon bëggutul bàyyil ki nga xam ne moom la yàlla teg ci kanam te ñëpp bëgg nga jox ko nguur gi dem sa moom ngeen joxoon loxo ngeen ànd nekk benn. daa xew léegi ci Afrique boo ko gisee moo xew Côte d'Ivoire daanaka moo fa amoon. fi mu toll nii moo xew tamit Guinée Conakry waaw président Afrique yi moom wax dëgg yàlla léegi ku ci toog deuxième mandat bu boo waree jeexal sa deuxième mandat ci ngay def changé constitution bi daal di def troisième mandat boo xam ne su ñëwee nga mën a toogaat continuer sa nguur léegi nag mu mën a jur lu bëre bëri. sëriñ bi moom di wuyoo ci turu Kamal Dieng di ci gën a indi ay leeral di xam ne ne réew bi Afrique yi ko fi doon def musiba rek la leen daal di jural moom mi sax di xam ne ne ñaari mandat war nañ koo mën a roy ci ñi nga xamee ne ñoo di nit ñu weex ñi. américain yaa ngi ni deux mandat nga dem si yoon ñaar président presque cinquante cinquante président ñun ba léegi mënuñu am six président mais maanaam maanaam maanaam doy nit boo amee ñaari mandaa ba ñett ba ñeent bëgg a jëm ñetteel. te saw askan wóolootuñ la wàccal joxe sa su nu xoolee dëkku nasaraan yi ku si toog benn mandat ñaare mandat même si peuple su bëggul sax da ngay bàyyi dem sa yoon jox keneen mu toog kon ñun war nañu xool si ñun. sëriñ bi moom jàpp ne ku sam réew dem ba soxlaatu la da ngaa war a dem sa moroom ñëw. soo taxawee élection ànd ak nit ñi nu fal la si jàmm nga am ndam ñëpp ànd ak yow soo ànd ak ñu ànd ak yow ba nga yàlla def maanaam nu dem ba doyal. sunu sunu doyalee da nga xam ne doyalee yow nga dem sax yoon jox ki keneen ñaari mandat rek dafa doy mais bëgg toog continuer wax dëgg yàlla loolu amatul. man sama gis-gis mooy fekkee no dem nga ba sa mandat jeex normalement da nga war a génn keneen ñëw toogaat parce que su dul loolu rek loolu dina indi ay jafe-jafe fii ci réew mi xam nga waaw loolu rek moom moo ci am solo ci ñun. ñoom sóoraale wuñu askan wi que lii ñàkk a sóoraale askan wi mooy président bu toog. sa intérêt rek ngay xool dootoo xool entre askan wi ndax su fekkonte ne defar réew mi la tax a jóg réew mi ñu la ko jox voteel la suñ demee ba doyal ci yow da ngay bàyyi ndax dañ laa dénk mais li liñ leen dénk ñoom dañ ko def seen moomeel looloo tax. mu mel na nag jot na njiiti réew yi Afrique yi taxaw xoolaat seen bopp ci bëgg nguur goo xamee ne nemmeeku nañ ko ci ñenn ci suñuy njiiti réew yi Afrique loole loolee loraange rek la fay daal di jural seenu askan. population ñoo ci war a jóg kenn dootul weesu deuxième mandat